mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk sa tur ak sa sant tey nag ñu ngi fii ci Malika euh, ku mel ni Serigne moor mi ngeen gis ko naam ñu ci baree bari xëy na ñi xam nañ ko ñii xamuñu ko mu yëngu ci wàllub ñaan di sant sant ci tey këram woo fi presse bi ne dañu bëggoon ngeen ñëw ma ànd ak yéen ñu def añ bu baax macha allah ñu koy jaajëfal bu baax ci loolu waaye ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi. su ko defee ñu wel waxtaan bi sëñ bi nuyu nañ la baax siyaar la ndokkale la nag ci kër gi. waaw asalaamaaleykum onze billahi mina seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim sant yàlla julli seen tib sallallahu alayhi wa sallam di leen sant suñu ñaari waajur di sant suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira mi sëñ Babacar Si di ñaan yàlla yàlla yokk leeram te tànn si barkeem di nuyu képp ku fi teew yéen ñëpp di am contentement nag bu yaatoo yaatoo yaatu si ñëw bi ngeen fi ñëw ndax yow suma xarit nga suma nit nga suma lépp nga ma ñëw nag tey di sañ suma kër ma woo la mm-hmm. ne leen laa bëgg invité añ mm-hmm. nga ne ma du ma ñëw man rek mm-hmm. dinaa ànd ak samay xarit te man samay xarit mooy presse bi man laa ca bisimilah noo ko bëggee noonu lañ koy defee presse bi nag ñu bari am na ñu ma si xam am na ñoo xam ne nag xam naa ne xamuñu ma wante man xam naa ñëpp ñu ay nit yu baax ay gor ay wax ko dëgg ay nit yu yiw ku leen jàpp jàpp ñu baax ku leen bàyyi bàyyi ñu baax parce que lépp luy baax si réew mi mm-hmm. seen loxo ngi si biir mm-hmm. lépp luy safaanoon si réew mi nag mm-hmm. seen loxo da siy génn ndax ku baax la ñu ñoo la baaxal presse nag yombul wax si média yombul am na ñu baax am na ñu mel na neen lu noonu nag yàlla moom mooy yombal lépp kontaan naa bu baax a baax a baax si teew yi fi teew tey bàyyi ji waaw tey nag li ma li ma li ma gën a li ma gën a yéem mooy tey ñu ñëw ci kër gi yow da yëngu ci wàllu ñaan ak yu mel noonu. Mm-hmm. waaye bi ma la waxee da nga ne ma déet tey moom ñëwuñu fi en tant que ñaan. Mm-hmm. dañu ñëw rek ngir ñu ci baree bari nga xam ne dama leen daan seetaan. Mm-hmm. te xaw ma leen ñu ñëw fi ñu daje fi mën a waxtaan. sabab boobu laal na waaw sabab boobu mooy fay naar bi xoromam. parce que man lépp lu ma am tey si àdduna presse bee ko waral. lépp lu ma mënti am ba mën a réaliser lu mel nii. c'est grâce à presse bi. bul woon ñoom du mën a am. lépp muy doom muy ay kër muy oto lépp ñoom ñoo tax ma ko bu woon yéen billaay wala kitaab duñ ko am dañ nag ku lu gërëm nit ku lu sant nit doo sant yàlla kon foo ma gërëm leen foo ma jaajafal leen foo ma teral leen moo xam si lu ndaw lu ma ak si lu yéem lu ma am pour wane ne am naa contentement bu yaatoo yaatu yaatu ci yéen ñëpp nag waaw di ko dalee comme Baye Balla moo fi kilifa mm-hmm. maa koy ziar bu baax jël lépp di toog si loxoom ak pël ak nabi ak gaa yu baax yëpp yëpp yëpp yëpp hmm. kontaan naa daal bu baax a baax a baax seen teewaay fii nii yéen ñooñu am question rek euh, pour sëñ Mor nañ ko wéyal tam bu baax a baax a sens parce que ñu mais it yaa ko def tamit ki wax ko deful woon du ko bi ñu nuyuwaat la bu baax baax a baax waaw dina xamal ni nag comme yàlla dogal na ni dañu yëngu ci wàllu ñaan nit baax te jamono ñu dëkk bi yëngu am nga ci ay kaddu yoo xamante ni war nga mën ko war nga cee mën a ñaax ak ñaan yoo xamante ni war nga ko def di stabilité ko réew mi ndax ñëpp ku yëngu ci wàllu ñaan Mhm. waaw jërëjëf Baye Balla réew mi réew Alaaji Maalik la réew Serigne Touba la réew Maam Limaamu Laay la ku bëgg jàmm jàmm moo fi am ku bëggul jàmm jàmm moo fi am ñu ngi naan ñaan ndaw yëpp si delloosiwaat seen xel delloosiwaat seen xol ànd ak yar ànd ak teggin fii àdduna la te lu nekk xew na fi lu nekk am na fi hmm. lépp loo gis si àdduna si nettal lay mujjee nañ ñaan yàlla ëllëg mu doon nettali bu rafet te képp kuy ndaw réew mi toll na foofu foo nga am kaaraange kaaraange nag mënut tawee weesu ñaar mooy di dal laay fi di dal waa ku bëgg am ngërëmul yàlla dangay am say ngërëmul waajur ndaw ñi foo ñu fokkaat seen waajur soo ko wut léegi ñu si mën wut sëriñ baax na lool aar la baax na lool waaye waajur mooy galaaju doom waajur mooy li foor soo amee si ñetti junni dama jël ñaar ñu jox saay ak sa baay ñaan la junni bis des nga dem si ñaan ka li ñu wutal di muslaay boo ko defe di am jàmm àdduna di nga am ndaw nag boo yéesee fonkoo sa papa fonkoo sa yaay sëriñ bu la mënti ñaan lay nax la ngay wut doo ko am ba ko ngay dee kon jeunesse bi nañ dellu seen xel fonk seen waajur joxaat cër seen waajur gën a am ak xam ni waajur doom mun koo fay ba ko yoma xam loo ko mën defal doo ko fay waaw ñun nag yàlla dogal na nag ñu ngi fekk ay njaq kon ko àdduna dafa doy waar àdduna dafa tëradi te naxaate bari ñun lépp ñu ngi dox si fulla ak fayda ak dëgg kenn duñu xam si ñàkk fayda kenn te mu nañu convocation ñaan ñu si gan def nañ si vingt ans métier boo def vingt ans mën na vingt ans du si gan xam naa bu baax a baax a baax miin naa bu baax a baax a baax dox naa tamit lu bëree bari damaa jut nag fekk samay maam day ñaankat ma doon samay maam doon samay njaay doon samay baay wante yemuma si loolu damaa dem gëstu yi fépp fu borom baax nekk wala borom xam-xam si senegal dem naa ba si yow moo xam weer la wala ñaari weer boole li ma war téye peeg xam-xam suñu bëree bëri bëri ndax xam-xam nag xaw ma da see bokkul ndax xam-xam ak xeef mi ngi mel di ngeen ak xippi ñaq ñu yor nag laaj ñu si cent mille laaj ñu si deux cent mille fépp nekk si àdduna muy Sénégal ak fu mu mënti nekk si bitim réew six mille la juróomi ñaq six mille deux cent sangu boo sangoo cat liggéey bu nekk si yow jafe-jafe ak gàllankoor danga si yow billaay wala ci laaj sangu juróomi njaq du 100000 du 200000 du 10000 sant moo xam mbër bi la moo xam ministre bi la moo xam député bi la moo xam milliardaire bi la moo xam président bi la ku fi ñëw ak ku ma doon 6200 nga may fay bu la neexee nag nga wax sa soxla ñu liggéeyal la si leneen ñu seetal la si leneen waaye li gën a wér mooy njaqi moom 6200 la gàllankoor jafe-jafe cat liggéey da ko dindi ba mu set wécc mu set wécc waaw si sax waaw si naa koo liggéey

ba ñu jot ci wala ñu mun a defal. waaw si njaq yi nag képp koo ci maanaam nekk bitim réew. juróomi parce que képp ku nekk bitim réew. Hmm. xam nga fi soxna. baa nga am fi yaay baa nga am fi doom baa nga am fi mag baa fi rakk. yaay xool ki nga wóolu nga yebale ko si ñun su ñëwee benn bu ne ñu takk ko si biir jox ko mu egg si ba si yow boo ko liggéeyee si kàttanu yàlla nga xam di nga am jàmm di nga féex waaw loolu moo amul sikk moom bu soobee yàlla waaye mu ci nekk si àdduna nag da ngay ñaan xam nga ñaan moom dafa yaatu boo nee ñaan rek bàyyiwatu dara lépp la ñuy ñaan ku ne si wàllu yoon am fa jafe-jafe nit ko xam ne ay mbiram dafa dëgër nit ko xam dafa tëju ko xam dañ koo liggéey te lépp ñu dafa day ànd ak garantie ñun duñ liggéeyal nit mu ni la tàng ñu fay su la nee tàng ñu fay teel sa xaalis boo gisee fay xam nga loolu yombatul muy waa bitim réew xam nañu bu baax a baax a baax. ndax li ñu am nag lépp nag si àdduna si loolu lañ ko amee am nañ ko si njumlan am nañ bu ñu jëflante di nga xam ne jëflante nañ mhm. la jaajëfal di kontaan ci invitation bi nga xamante ne bii mhm. euh, la ñuy la ñuy yëngu. Mhm. Euh, ma bëggoon laa laaj ba xam ndax da ngay ñaan ci wàllu làmb da ngay ñaanal ay mbër waaw wala déet. waaw man mbër yi may ñaan ak mbër yi may ngeen na am na fi suma bëri su ma juum miinal ma ci mbëri dina may gis samñaan may du jeex du xaaj suñu borom moo boole ak ñoom ñu sumay xarit lépp nag ay mbër yu mag mag a mag a mag non am na ñoo xam te ni jëlal <laughs> wax parce que la ndax ñoom ñu ngi ñëw si bëgguñu ma gis nag ma ànd ñoom di nga xam ne ànd ak ñoom waaye du ma ànd waaw ay mag lay àndal. mais làmb daal moom da waaw man xëccoo mooy sama domaine xëccoo. xëccoo mooy sa domaine. waaw. mooy sama domaine loolu xëccoo mooy sama domaine. Ah, waaw xëccoo maanaam mooy nit ku nekk si. waaw nit ku nekk si place di xëccoo dara. nit ku nekk si société di xëccoo dara. nit ku nekk si làmb ji di xëccoo dara nit ku nekk bitim réew di xëccoo dara. waaw man damaa bëgg xëccoo parce que si loolu laa gën a gëstu. si loolu laa gën a tarbiyu si loolu laa gën a bàyyi xel lépp lu may xëccoo bu yàlla dafay jàmm. bu si tegee loxo dina sotti ba si mburu làmb yi ñu bëree bëree bari ràññee na si man bu ma si xëccul dara wala mbër ñëw si man di ma ñaan su ma la joxee sama tegtal jox la sama sarax wala defali defali si kàttanu yàlla soo demee làmb ñoom lay demee man maa ngi kii yóbbu mbër wax la mbër mi ñuy daanoo billaay wal ñuy daanoo wallaay wal kitaab man maa yóbbu mbër jox la tegtal yu wér maa yóbbu mbër tey wax xam ne bis bi du baax ma la kàndam ñu yàq bis bi billaay wal kon kon kon kon sëriñ mën naa mën naa ngemb mbër mu xool ne bis bi mbëram jekkul mu jaxase lamb waaw si ay sarax ak taxawaay si biir jéew parce que mbër da ngay ñëw tey mu wóorante du sa bis ñu gënee ay sarax yàq bis bi jox la ay tegtal ñu la bi ngay taxaw si biir jéew bi taxaw si digg jéew bi wala defal ay déplacement su ko defee ñu yàq lamb ñu ku nekk dem ak sa point mais defet moom du fa am bu soobee yàlla wàllu politique dañ ciy ñaan bu baax damay ñaan si wàllu politique mais sama domaine xëccoo la waaw wax dëgg yàlla nag loolu moom man mun jigéen boo xam day sëy bañ a am tu tànk man mënu ma si dara de dañ koy jindi bu dee foto dañ koy jindi waaye mbir doom mbir tu tànk moom ñu ñu si dara waaw lu dul loolu hmm. waaw dañ koy saafara waaw dañ koy saafara waaw. dañ koy saafara bu baax a baax a baax waaye ñu am. waaw yow xam nga ma yow xam nga ma nee la xëccoo laa xëccoo ma si néewtaan laa jaare fa laa def lu may def yëpp hmm? fekk nga fi stade ma yor ñu mën ko 2-0 ban ko mënee 2-0 hmm. ma jug def li may def. war ni ko moo koy la moom mi mu jëli ko dëgg ba mën a ko voilà. sëñ yi nga xamante ne ñoo nekk ci waaw loo xamante ne xam nga ne message yi mooy man du ma wax ak ñoom lu tax du ma wax ak ñoom mooy askan bi laay waxal parce que askan bi ñoo waram fula ñoo waram fayda ndax ñoom ñoo liggéey seen xaalis ñoom ñoo war a xool fu ñu ko yóbbu ak fu ñu ko yóbbu. ñii nañ bàyyi caaxaan caaxaan ay naxe du wéy du sax képp ku nekk si mbir muy ay caaxaan wala di fen yàgg yàgg yàgg fen yooyu dina la mos a boole duma la nan nekk si dëgg askan tam nañ xam sëriñ yuy dem am na nag ay ñankatu yàlla am na ay nitu yàlla yu wér yu ne si réew mi yoo xam ne li dëgg la wax ne bu ñëpp tëddee nelaw ñoom ñu tëdd nelaw waaye ñankatu yàlla léegi nag moom doy na waar yéeme na ku jóg ne man sëriñ laa man nag ruus naa man maa bëgg nekk ndongo daara ba ko roog may mat li ma doon waaye wóor na ma ne gars yu bëri yuy cal-cali fii si net bi yu ñuy def yëpp ay caaxaan la ak ay comédie bas si dem ba yóbbaale mbëru làmb yi ba si làmb ji bidéo yu bëri du dara ay folklore kese la billaay wala kitaab ay folklore kaase moo ne caaxaan la baatin amatu si làmb boo ne ñaar ñett doon na ñeent mbër yu yor baatin dëgg lu wér boo nee ñaar ñett doon na ñeent ñi des ñëpp ay folklore lañ yor ndam na yàlla suñu moo ko yor nit yorul ndam

510 39 83 di nga ma jot man aw ma kenn ku yor sama téléphone ma yor sama téléphone ku ma woo man ngay jot te képp ki fi ñëw bu ñu jëflante incha allahu rabbi di nga xam ne jëflante ne ci lu wér waaw ci lu wér comme nag yéen da ngeen nekk si programme temps bi dënka leen hmm. ñu ba leen fee téye ba leen fee yàggal hmm. parce que nag jàmm buy dox farata day xam ne farata ngeen dox hmm. maa ngi leen ñaan yéen ñëpp di ko tibbee sama xol yàlla nañ yàlla sàmm yal na yàlla musal si cat balaa jeegu ñaaw yal na yàlla defal sutura àdduna ak bu alaaxira yaa yéen a xam li ngeen bëgg yal nañ ko yàlla defal ci mu lu gën si yéen bërëb bii ngeen ne dafa liggéey yéen ñëpp kenn ku si ne yàlla ngeen dem ba kenn ku ne am yëf boppam yal nañ yàlla def ay millionnaire ngeen liggéeyal diine di liggéeyal Sëñ Tuubaa di Malik yàlla am na ko mën na ko yomb na ko yàlla na ko def si baat Muhammad bëgg naa bu baax a baax a baax bëgg